jubbu si mooy kii mooy ëllëg xànjar muy naar bi tubaab bi njaaga bi comme mën a doon boo ko si dugalee sikkar ko sikkar ko mu wuyu si la moo tax ëllëg xànjar la muy ñi nga xam ne tamit seen jabar dafa dem lu yàgg muy naar la wala tubaab la moo xam lu mu doon dugal ko si def ko trois jours mu ñëwaat ak lu mu mën a def day ñëwaat trois jours nga koy sikar mu ñëwaat koo bëgg a wala looy xëccoo bëgg bëgg kooka nga éliminer ko nga xam ne dugalal turam sikkar ko kooku dootul waxatu ci loolu moo tax waaw moo tax ñu koy liggéeyal kilifa yoo xam ne ne moom euh, seen biir kër lañuy toog di xëccoo dara ñu dugale leen fii bu ñu demee baat tontu lay doon waaw lu coow coow bari waaw lu bari bari bari bari ñu woole tribunal coow li bari bari bari nga bëgg a am ndam buñ si dugalee loolu boo demee baat tontu lay dem waaw mooy ëllëg xàññar gu garaaw gee waaw bii nag mooy jaara bi nga xam ne pour wàllu bayra lay dox bayra mooy bayra rek nga xam ne ne artistes yeeg musiciens yi ñëpp jaara bii leen yor bayra yow mi nga xam ne da ngay jaay bëgg loo yor du taxaw yow mi nga xam ne da nekk si bërëb bëgg ñëpp wuyu si la jaara bayra bi la lool moom pour bayra la bokkut ak lambe ram bi moom moo def total waaw kii nag moom pour nit ñu sopp la jox seen bopp loo wax rek ñu ne waaw muy wàllu jaara bi bu bul wax kooku kooku moo yéeme lool muy wàllu bayra boobu yii ndoom ma gi mooy pour wàllu coow la mooy ñi nga xam ne lu dugg rek mu am coow wala ñuy dugg si ay musiba coow li di bari bu ñu ko xasee gaw coow fay lay def coow dootu am coow lu mu garaaw garaaw garaaw boo ko takkee coow li fay comme ay coow ñoom Wally Seck yi nga doon dégg ak bu ko ku ko si takkoon coow la fay dootu kenn dootul waxatee bu la neexoon nga am ak président sax coow mën ko xasee ba dugal ko si boo ko takkee kenn dootul waxate wax jooju wax jooju dañ koy fàtte moom ndomba gi waaye nag ka nga amal coow wala ña nga amal coow na ngi leen xam ñoom ñëpp seeni tur ñu dugal ko si biir yow nga gaaw ko sa ndigg bu leen neexoon dem jàkkaarloog ñoom nii duñ wax waaw moo tax ah, nga ñu bari nag ay jamono dan dan daa ñëw si kër gi wax wax joo xam ne de waxu ñeme yàlla la maanaam dañuy dem lekk xaalisu jàmbur ay millions ñëw nag jox nu tur yooya léegi nag loolu nag dañu yàlla xamal ba si biir nga xam ne képp ku fi ñëw pour caaxaan lu la jox ndomba gi ndax xaalisu jàmbur kenn du ko lekk ba pare dem di doxi say soxla waaw loolu moom euh, duñ si dox moom moo tax ku dëggu rek nga ñëw nga xam ne lii moom coow la te dëggu nga boo lekkoon deux cent millions yi jàmbur waaye ne la leer na ne yow da nga koy fay kenn du la tëj waaye ne leer na yow da nga ko ko fay bu ne la woon dama lay tëj ci bon buñ ko jëlee ba dugal turam mën nga di romanteeg moom nii waaye nag na nga na nga fay waaw bëgg waaw waaw alal fay rek waaw xam nga kii euh, semaine bu ne lu si mën a liggéey du doy muy wàllu neer sciatique arthrose yax yu metti ndigg luy metti surtout ñi nga xam ne ne guddi gi du nelaw waaw jinne léegi moom moo leen sonal une semaine lay lakk jinne rab boo mën a am une semaine mu lakk ko waaw dee ko di woo rek mu lakk ko bu dee biir buy metti nga boole ko meew biir ba fa lay jaare wér mooy kii moom baati nañ ko liggéey muy baatu karatay ni nga xam ne lu mu fekk ci sa wàllu yaram metti yax yi metti lépp daf koy dindi ba mu set wecc wecc mi ngi nii muy forote bi nga xam ne ne moom dañ la koy garanteel fu ne lay dem nag ci réew mi médecin yi sax dañ leen koy jox dañ koy xam nañ ko bu baax muy forote bi nangu nañ ko bu baax xool nañ ko waaw ndax karatay ni biñ si moom moo tax waaw dañuy am yenn aajo yoo xam ne ne nag il faut jël kurus waaw duñ ko defal ñépp ndax ñun leen yàgg wax rek gëm nañ ne buñ ne allahuma rek yàlla nangul na waaw ndax lépp ñu ko wékk si salaatu ala nabi di sallallahu ala muhammad nga xam ne képp kuñ si dugal ñaanal la si yàlla aaja boobu day faju waaw aaja boobu dafay faju moom moo tax ñu bari diñu sàkku lu ñaan ay kilifa yoo xam ne ne duñ déplacé wu dañuy jokkoo ak ñoom ñu sant na ay ñaan ñu def ko moo tax képp koo xam ne dugal nañ la xalwa ba ñaana la si yàlla boo génnee aaja ba faju waaye nag len diggante na ko def na ko respecté lan lay wax nga respecté ko aajo bu lu mu rëy aajo ba day faju loolu moom man maa la ko lu mu rëy rëy rëy rëy aajo ba day faju waaw loolu moom man maa la ko seedeel nii waaw waaw am naa si jour ndax sama nit la muy Pape Gueye bi ma koy isate si guddi gi sax ñu bari dan ma doon woo na ma sa wa sa sóor bi da du suye wala loolu ko kii ma bàyyi ci biir rek xam ne moom biddiw ba biddiw bay fenk foofu